sant suñu borom bu baax sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sant tamit jëmm ji nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bi nga xamante moom la ñu ñëw tey euh, ziyaar njabootam saafonte ak njabootam euh, ànd ak euh, sunu ñooñ ñëw foo xamante ni fu ñu miin la xëy na tey xam nañu ci wàllu politique waaye fii pas-pas dëgg mooy moo ñu fi boole boobu ba tey donc tey moo waral ñu ñëw fii ngir ànd bés bi ak euh, njabootu sëñ Modou Moustapha seeti sëñ Modou Moustapha nag jël si ay leçon la ay dars yu ama am solo bokk na ci xam sa bopp na ci it sàmm ndono bokk na ci it euh, dolleeku mahabba ci sëriñ bi bëgg sëriñ bi ndax fu mu liggéey bi euh, fi mu egg rek bëgg ak wóolu moo ko fa moo ko fa yóbbu te bëggoon na sëriñ bi ba mat sëkk transmettre ñu loolu wóolu woon na sëriñ bi it ba mat sëkk transmettre ñu loolu donn yoon wi tamit dans un contexte de crise waaye crise boobu terewul mu bàyyi fi ay résultats yoo xamante ni yu mag la yu ama am solo la loolu moo tax tey en tant que une jeune génération bu ñëw am loo xamante ni tamit yàlla suñu borom dogal tey ñu koy dox ci réew mi di tàbbi si barab yu mel nii ci contexte yu mel nii ngir jàng si ngir rendre hommage dafa ñuy euh, réconcilier tamit davantage fàttali ñu ay valeurs yoo xamante ni yu am solo la te loolu sëñ Modou Moustapha daf ko incarné euh, dans toute sa euh, dans sa forme la plus sublime donc loolu moo taxoon tey ñu ñëw ziar si kilifa ki nga xamante ni tamit wayjur la ci ñun dañu témoigner jamono bu ci nekk affection bu mag tey tamit ñu ñëw ñi ñi jege woon sax dégg nañ gisee mu ne gëjoo ci kër gi te loolu moom moo am gëjuñu fi ñëwoon ziar si ko nemmeeku si ko donc tey jii tamit ñu ñëw dox si tànk yooyu